inflation bi euh, impact bi mu am c'est de la c'est à la hauteur euh, de l'angoisse bi nga xam ne euh, ñàkk waxam bi juróon na ko ñu ne ko ndax candidat nga mu ne ni oui ni non e ci 2019 ba tey mu am de part de part et d'autre des actes yoo xam ne posé nañu ko qui ont euh, conforté les Sénégalais ak l'opposition dans l'idée que le président euh, de la République voulait faire un troisième mandat et on en avait même oublié déclaration yi nga xam ne defoon na ko antérieurement en 2018 à la veille de l'élection euh, bi ñu ko falee ak sax ci livre bi nga xam ne euh, defoon na ko euh, avant la présidentielle alors ñu bari jàppoon ne finalement du respecter kàddoom moom ce jour-là mu ñëw il nous parle de code d'honneur il nous pa mu ramane ñu valeur yoo xam ne on a tendance à l'oublier mu ne moom code d'honneur son éducation mayu ko muy def yenn jaralu ko euh, yenn mbir yi est-ce que du tiit bi ñu tiitoon moo tax mbir mi am benn benn benn impact national non je ne ne pense pas xam nga candidature élection présidentielle dafa am loo xam ne da ko moom mooy li président Macky Sall moom am na loo xam ni partie bi da ko moom am na loo xam ni réew mi da ko moom c'est vrai qu'il avait di auparavant que euh, du def beneen mandat mais fi àdduna toll ak fi réew mi toll man bokkoon naa ci ñi jàpp ni président Macky Sall waroon na continuer parce que aussi euh, réew boo ci nekkee di ci liggéey wala boo nekkee ci réew mi xam réew mi mu am nu jamono di doxee dafa am loo xam ni da ngay analyser objectivement xool ñi nga xam ne yàlla may na leen ni lii réew mi soxla jàpp nga ne ñoom ñoo ci gën a jekk wala mën nañ ko nga ne ñii kat ay la yewén nañ leen jàppale nonobstant nag nit ki engagement bu mënoon wax wala engagement boo xam ni euh, jëloon na ko c'est vrai que ci wàllu droit man bokk naa ci ñuy jàpp ni président de la République am na droit bi ci wàllu fii réew mi toll ndax booy fàttaliku ñaari at yi passé wala ñetti at yi passé am na lu bari li xawoon ci adduna bi jëm ci Covid bi ñuy wax mujjee yow maag yow wax fii boobu ñu woon ci jamono Covid àdduna bi jaxasoo li fi nekk ci àdduna bi tey jii jeexagul ñii gëstu ñëpp xam nañ ni eh, jamono ju metti ji day continuer encore ay années bi loolu jeexee gis ngeen bi guerre Russie ak Ukraine ñëw njëg yi yokk mu am déréglement total même ci jaww ji ni muy doxee muy climat lépp dafa déréglé ñu am des problèmes de sécurité ak nag lu ñu bëgg bëgg euh, nguur walla leneen lu mu mënti nekk boo amul sécurité daanaka mënoo am lenn aujourd'hui boo xoolee Sénégal li ko wër sur le plan sécuritaire lu lu lu lu xaw a yéeme la lu xaw a jafe la loolu nag ci circonstances yooyu en tout cas ci suñu biir parti APR après évaluation on a pensé que moom mu continuer woon doon na doon na doon loo xam ni njëriñu réew mi la donte wul ak moom gis-gisam ak lu mu bëggoon mais euh, mais boo xoolaatee dafa mel ni ko xam ne da amoon dilemme la parce que il y a l'appel du devoir parce que ñun am nañ ci moom wàll ak loo xam ne moom wax na ko ak la nga xam ne jàpp na ni bu defee noonu mooy gën ci réew mi toujours est ko en un moment donné il a pris une décision souveraine qui est contraire ak ñun xëy na euh, li ñu li ñu bëggoon mais boo seetaatee bu baax décision bi dañ parce que euh, lu nekk mën nga koo bëgg mais bu bu dara mbir amee da ngay xool la mbir mi jur la mbir mi jur aujourd'hui ci wàllu respecter Sénégal ci wàllu moom cëral ko ci wàllu wan ñu ñun ñi nga xam ne nous sommes des acteurs politiques wala ñun ñi nga xam ne dañoo ànd ak moom ci liggéey que c'est un homme exceptionnel c'est un homme qui mérite les hommages du Sénégal c'est un homme qui mérite les hommages de l'Afrique c'est un homme qui mérite les hommages du monde maintenant ñi nga xam ne ñu mel ni man la ñu nekk de vieux fonctionnaires gis ne administration ak ni état di doxee xam nañ ni que un homme tout simplement exceptionnel. Alors on ne revient pas sur le débat juridique parce que c'est tranché, c'est derrière euh, nous, mais mm, dañ doon wax naan la valeur du la, la parole du président de la République n'a pas une valeur constitutionnelle moom mu ñëw ñoñam yi ñoo ko doon wax moom mu ñëw fàttali ay ñoñam ne kàddoom même boo amul une valeur juridique constitutionnelle dafa am une valeur morale intrinsèque boo xam ne euh, nécessité la moom mu mu respecté ko ñu bëri comprendre ñu woon affaire bi nga xam ne euh, mbiru troisième mandat moo ko indi ci nguur après que les responsables euh, di naan président dafa war a def euh, troisième dafa war a def troisième mandat. circonstances yi ak contexte yi du benn circonstances yi ak contexte yi du benn boo xoolee contexte bi ñu amoon 2011 2012 on était dans un monde boo xam ne à la limite ça fonctionnait normalement. diggante 2012 ba 2018 2019 y avait pas de problème à partir de 2020 adduna bi dafa jaxasoo ça c'est un loo xam ne dafa dafa am lu am loo xam ne musul woon a am ça c'est extrêmement important c'est quelque chose boo xam ne nga koy euh, analyser du ñu ne Macky Sall rek moom ma mën du loolu mais boo nekkee ci situation benn oto buy daw euh, nekkoo en pilotage automatique wala avion buy daw tu ne changes pas le commandant tout de suite parce que gis nga fi mu nekk nii ni coow li bare ak ni réew mi yëngatoo du fait de cette décision que je salue personnellement parce que nag am na loo xam ni dafay dem ba dellu ci nit ki moom moo ko moom il a mis sur euh, la balance les intérêts du Sénégal il a mis sur la balance ses valeurs intrinsèques mooy ni nga ko waxee ni mu jàpp ni mënatul dem mais ñi nekk APR ak ñi nekk Benno bëggoon mu dem Euh, quand on exerce le pouvoir wute nag koo xam ni daf koy uti on gère une situation qui est là qui est concrète aujourd'hui adduna bi jafe na adduna bi métti na y a trop d'incertitudes li nga xam ne am na ci Russie ak Ukraine kenn xamul fu muy mujjee kenn xamu ko tey ji boo xoolee li ñu wër fii ci Afrique euh, du du teggin mooy tudd ay ay réew mën na jur lu nekk ci li ñu wër fii ci ñun rek fi fi ñu nekk nii loolu dafay laaj à un moment donné ku nekk fàtte sa bopp ku nekk fàtte say engagement mu am loo xam ne dañ koy bokk et dénominateur commun bi ñu amoon bi nga xam ni moom moo mënoon boole réew mi pour ñu mën a jàll circonstances yi man jàpp naa ni il a toutes les les qualités il a l'expertise il a la confiance et loolu jàppoon naa ni sa Sénégal ñu sauvé ko ëpp na euh, kàddu yoo xam ne nit amoon na ko mais ça c'était le point de vue du Premier ministre c'était le point de vue du militant que